témoignage wala waxtaan si Assane Salam ñëwoon ci xombal tey le 30 30 mars 2018 di laaj El Hadj Modou Ngom di woon ko jege si Assane Salam xam ci moom lu bëri ñu koy laaj ñu koy laaj tey tudde na ko doom li xam ci Assane Salam mu baaxee ñu si. doom bi ko tudde dama faa dem njaareem mu ne ma sëñ Ngom taxal ma taxaw mu ne ma doom bu góor dee ngi sa ndig waaye na nga góorgóorlu bu juddoo nag ma ko tuddee. waaye na nga fexe ba jigéen joo takk jur ko it nga léegi may dem dem dem ba sama soxna ëmb am doom du góor ma daal di fii daa bind sëñ Fallou ak Alassane ma loolu si ñetti yoon Alassane Gaye ma gis benn voiture benn oto buy jëm Njaaréem ma ne ko sëñ bi dese nga place mu ne waaw ma ne commandé Njaaréem laa jëm mu ne des na place ma daal dugg jël voiture dem mu ne mbaa jàmm ne jàmm rek dafa am loo ma waxoon sama yoon moom fi mujjee dag ma ne ginnaaw boo fi jógee góor nga jëkk a gis ci hmm. waaye na góorgóorlu ba jigéen joo takk jur ko hmm. léegi nag gis naa ko man nag comme murit laa hmm. ah sëñ soo woon doom ci waa kër sëñ Touba te daa dund ñaan nga nga may ma tuddee ko ko mu ne ma déedéet yow ma xëy am lu ko sëñ Fallou ma ne mënal naa ko demal tuddee ma ko <laughs> war war naa ko bi dina ko dégg fi ñëw sax Hmm, ah. fii jaar naa fekk moom nii hmm. may dem Màkka nag hmm. sama benn xar may ko kaay damay tàggu yàlla san mu ñëw kër gi xam lool ma ne ko ah comme wax dikkal na ko daal sëñ mu naa ah, ma ne ko nan dem mu ma déet ma ko du ma dem bu ma mu ne wax samay jaar jaar <laughs> te rafetut <laughs> wàññi ah, ci ëllëg ma ne ko dem balaa heure bee jot léegi nu ñëw mu nuyu ko ba ah moom na nga def maa ngi fi ah yaa rek ma mu ne léegi nag yow looy defal sa baay sax ma ne ko xanaa jàngal ko alxuraan muy sa baay jàngatul alxuraan di tubaab la daa xanaa xamu ne ku jàng alxuraan képp la yoon def ñu wàcceel ko kaamir ne ko ah, mu ne képp ku dee ñu wàcceel la kaamir mu ngi mel ni sofoor bu dee accident ñu yóbbu ko tilbinaar boole ko code ni ko table bii lu mu la ndax def nga ko wala defoo ko mais noonu la alxuraan mel ku ñu ku ko jàngul de mm-hmm. boo ko jàngee rek dañ la ci àtte te buñ la ci àttee nga ndax la yàlla wax la la yàlla wax da ko koo deful mm-hmm. waaw loolu la mu wax dégg nga mu ne ko man de dama bëggoon a dem Makka mu ne ah ma ko waaw mu ne ah. benn sarax bu ma la mm-hmm. boo ko defee day dinga nga wopp mais doo ko def waaye boo ko defut doo génn Médina hmm? doom yi ma doon fajoo nga ne ci wuri si waaw ma def sarax mu ñëw ni ko ah la nga def naa ko waaye Médina feebaroon naa ba commision bi ñoo ma doon may gar <laughs> waaw <laughs> ah? eh, fii jaar naa feeg moom hmm. mu ne ma nag nag mu yotaale mbaxana ndax sama mbaxane mi daa xaw a raam hmm. ma ne jëri ñaari mbaxana sama boso nga dañe bés bu dee si ma daal dugg dem jaare sëñ bi day yot naa la mbaxam waaye daf maa yenu hmm. mu ne ba ngay def yaa ngi ñuul ku ak bàkkaar waaye fi mu yaa ngi mel ni koy dooru ji waaye rek waaye ngom góorgóorlu nag góorgóorlu <laughs> góorgóorlu hmm. ba lii yii yëpp taq-taq yëpp na ko jéem a évité bu ko defati hmm. waaw bu dee mbiram na saabu dalaa yomb nag da ngay bind fàlleroo baaxee xaaj yi ci sa sàkkara bu ko defee dootoo mën a jigéen bu dul sa jabar rek doo ca mën a. baax xaaji fàlli lan baax xaaji. Hmm. ah fàlli lan ma baax xaaji. fàlli boo ko bindee doo ko hmm. léegi nag mu ne foo dëkk ci Colobane. foofu nag moom ëpp naa wax ci télé ci rajo bi. <laughs> du man hmm. am ku ma mu ne fa kër gi ah yàlla def. mu gis daal ñoom ñaar ñuy jaxasoo. ci lii ak jabari magam hmm. a ah, lu mu ko defee nag mu reer ba pare mu daal di woote ci ëtt bi hmm. mu daal ni borom kër yow de kii sa jabar kii sa rakk la hmm. mu ne amu ah, ne waxal sa rakk ja mu ñëw tuubal la ndax ñoom ñaar ñi kat dañuy jaxasoo <laughs> loolu sax warum ko wax bi <laughs> kenn du ko su ma ko defee rek yàlla naa tëdd ak sama mu ne nag mu ne ngiñ loolee bu fii nu koy waxee ngoon gu jot yàlla di ko bindal bàkkaar ak kuy tëdd ak ndeyam ndaw sa ci boppam it daal di giñ ne loolu bu dee sama doom ji yàlla moo ko si daa ah? mu ñëw ne man day sëñ hmm. ko bi dama ne damaa gis benn xale bu jigéen daal ceen ak soow rek nekk ci tànk bi mu hmm. woo ko ne ko yow de danga nga ëmb ak sa ngeen dindi ko hmm. sa ceen ak soow rek day ngi sa tànk hmm. mu dem wax ko baayam baayam dem police ñu jàpp ko ne ma sëñ bi lii bu ko waxate ma ne ko man li may wax ku ma ko wax li may wax loo ko wax loo nga wax <laughs> xam nga nee na ma ngom lii bul defee def ma toog man ko ndax may dikka fekk dama ànd ak sama benn xarit ne ko kii de daa bëgg nga wax ko li seet may waay dañ may wax loo may wax rek oh, waaw wax ah, waxi bu may dikkal su ma dikkalee daal dara lu ma um hmm. waaye su ma dikkalul maag yow yëpp ah, nii la ma ko waxee hmm. bu demee ci armeel yi bu ñëwee rek xam woon sa mbokk mu ñuy mbugal mu ne defal ko nangam ak ndax ñoo ngi koy mbugal ndax nangam ak nangam itam hmm. bu fekkee ne am na loo tooñ yàlla dana yow mii de béréb sàngam ci waxtu sàngam def nga nangam yàlla hmm. demal def nangam ak nangam mu dëkk loolu it da ko daan wax waaw hmm. benn waay yëmbal mu ñëw mu ne man di góor gi Alassane mu ma ko wedd mu ne ko ndax lan mu ne am ko gaañu fii hmm. dañ koy rob càngaay la mu baaraam yaa ngi fee te Alassane ñëw bi ne mu ñëw wéeru fii ci duus bi ne wóor ma borom kër bi ñu ne ko dee mu ne ak kim fi bàyyi laaw ñoo mu ne ko yow sa bàyyi càngaay la mosul doon xotti càngaay saraxe ko waaw te waa ji ne loola ba muy am ne man maa ngi taxaw hmm. alsaan ba mu koy nett li maa ngi taxaw hmm. ne kii kon li mu wax dëgg la ah <laughs> mais góor ko hmm. xan soxla sa ndaw sa moo la ah. ah mas naa fa ñëw mu ne moom comme kaay xool sama kër gi ni mu sete sama jabar ju ndaw jiyee ko de. dañ koy mm. ah. ah. yàlla ko baax moom. mel ni moom jafe na. julli julli waay xam nga xare Badar kañ la woon. waaw yàgg na de. ah junni ne ci la ñu ko doonoon aw xeer la. waaw. lu lu mu waxan ci ci ci ci biti am na ñaari sëriñ yoo xam ne du leen tudd de waaye du tudd mukk ca la mu jox du ko wax <laughs> yàlla ay yoo moom du ko tudd moom ma ko xam moo koy waxal boppam waaye du man hmm. waaw nekk lay la nga nekk ak ko yóbbee yëpp wax na ko ko dëgg la kay moom kay lu yóbbeem nattu lu ne dee la ko wax hmm, hmm, ah bu ma saa toog suñu buntu bi si fii dañu koy teggi ndax moom bu wax dikkee moom boo ko boo ko laajee mu wax la laajee mu wax la ko laajee mu wax la soo ko def nga nangam ak nangam boo ko miimee léegi ma jox la firnde waaw waaw ah hmm? ah xoolal laayeen yi am na ci koo xam ne kii yàlla lu xëy ne day yàlla xamal ne ko ne day dem moom dem nga fa daje la ci sëriñi laayeen yooyu ah sanawaa ba mu dikkee denen le kii daal bu leen ko fanaan guddi naa guddi ko kii fi mu ne yéen dong lay xalaat waaye xalaatul boppam fa mu jëm la koy dimbali daal leen koy denc léegi ci guddi waaye noonu wax nañ daal di def boo waree onze heures daal onze demi ci lañ ko denc ci guddi mu ne waaw kii lii la bëggan lii la bëggan yéen fu ngeen toll di leen ñaan waaye moom li mu bëggan am na parce ah, que waaw nii la ko waxee nii la ko waxee ah hmm. ni alxasan ah Ah, kéemaan la <laughs> nga salaam lan la ma ne ko dee mu ne muy mucc hmm. waaw léegi doom bi ma ko tuddee mu ne boo ko gannaaw nee nga alasan salaam rek bu la neexee di wax salaam ma ne ko salaam rek mooy déet bu ko reeku salaam mooy mucc <laughs> eh, am na sa benn mag bu fa demoon nag hmm. dafa dajeeg sama benn doom buur mu ne ko yow day sama rakk sa bàyyi lañ ko tuddee hmm. ak saa ñëw wax ko ko dem na ba njaareem dem ñu ne ko kooku mu ngi doon jëm Touba mu téléphoné ko ne ko ah maa jóge woon Mbour naa waaye fekkuma dem xam nga nag gannaaw mujj na ñu gisee mbir mu ne ko wax ah, demal su del see Mbour dinaa fexe ga hmm. ndeysaan mu leen liggéey doom bi ma a Mbour mu hmm. doom doom yu mujj bi hmm. Cheikh Ibra Fall la ko tudde laa tudde Cheikh Ibra Fall doom day sëñ doom mu ne ma Cheikh Ibrahima nag dama ko gént hmm. moo tax ma tuddee ko sëñ Fallou nag hmm. sama yaay moo ma ne ba ma juddoo hmm. dangaa lotari Alassane Salam ak sëñ Fallou nga lotari ñetti yoon Alassane kañ moo tax nga tuddee ma ko ma xam ne comme amoon nga yéene tuddee sëñ Fallou doom ma tuddee ko waaw fay bor bi waaw yéene ji la noonu la ah, ko rëcc lu ko rëccu am na genn kër gu ma ci golta fere man de démb waaye tegtal ni ma tegtalee kër ga fii mu ne mën naa faa yóbbu sama bopp mais dafaa ñëw fekk fasu ñëw ci buntu kër mu ñëw ne ana borom kër gi ñu ne ko dee lu mooy wol leen ma kim bàyyi doom ñëw mu ne ko ana mu ne gaañu na mu sa papa ngi mu ne ko nga ne ko sa papa ngi boo ko gëmu nag woo ko mu woo ko fas bi kàbbar ñaar nopp mu ne ko nag kaay ma wax la tax kër gii sa amoon na fa su course mu ne ko waaw mu ne ko aussi fu mu dawee raw ba ci la kër gi parce que dem ba mënatul raw kenn mu takk ko saret toroxal googu tax bi mu dee ñu jël ruuga def ko ciw fas muy fas wi waaw loolu wax na ko moom ah waxal na boppam ci band ci band bi ma ne man mën naa fa kër ga ni ma ko tegtal man mën naa faa dem mm-hmm. waaw ci goltal ko wax na ko waaw yii sëñ Alassane kay sëñ Alassane kay ay mbiram moom ci ne boobu googu nee ma nee bu ma demee ci armeel xam nga nu may gisee ñi tëdd ma ne ko ah mu ne nga jox ma seetu galandiir noonu ma téye seetu bi jàkkaarloog sama bopp ci biir ne noonu laa gisee ni wi tëdd <laughs> noonu laa leen di gisee waaye nag sëñ Ngom daf may dikkal de bu defee toujours mën naa ko mhm. daf may dikka rek waaw am na benn waay foofu ci cële boobu hmm? ah loolu yow parfourier foofu parfourier lu mu doon parfourier mooy topp ko te fas yi hmm. mooy moom la ñuy jël muy topp soo saw fas moom it moom it Moustapha lu mel noonu ba mu fa demee hmm. ba mu tëdd mu di mu di yéen ñett bi ñu ne ko kooku daal yéex par foot ni moom la woon macha allah mu ne waaw koy ana ay bokkam ñu quoi ah, fii ne daa nekk ay bokkam ba léegi xam naa ne mel na yu mel nii ko fi andi woon rek waaw wax ci ay waxam ni mun na ko <laughs> ba tey fii bu ma demoon ci àll bi comme waxoon ah, ko yàgg na xombal nag ah dëkk na dëkk na fii sëñ ah, Fallou ko fii tax sëñ Fallou jële ko it moom ko wax fii mm-hmm. waaye xam naa ko waaye nag mm-hmm. rek mm-hmm. day ku yàlla andi di ñoom ci biir jàmm muy dimbalee ka defare waaw waaw muy dimbalee ka defare hmm. loolu rek la fi nekkee man hmm. ah am na lu ma gis de hmm. mu ne ko ah mu ne waaw sëñ Fallu xoolal boppam xoolal boppam waaye léegi naa mu ne eh waaye doom bete ko takk waaw waaw xam naa am naa li ma la wax li ma la tax sëñ Fallu ne ko case bi yóbbu fee ah sëñ bi ba muy dem xam ne ak wàññi ko moom faat na loolu tax boobu fi dara am pàcc mi mu dëkkal sax daf ko bari ba ba laaj daa xaman di ko sëñ Fall doon wooye mm-hmm. xamal ne it ne moom du mënati mm-hmm. ñëwaat ne ma ba tey pàcc mooy ko fi wala na ko fay toppatoo ba ba yéen ñëpp ah, ngeen waaye nag waaw booba daal booba daal moom la taxam mu jub daal yàlla rek xam mm-hmm. yàlla rek xam ah, waaw waaw man la woon kii man la woon kii man la woon kéemaan la woon Moussa jóge ci eh, kër gi jëm si ci gaar day mel ni ñu ba ci gaar bi naa sëñ Alfasana ngeen di ñëw ah. ñëpp dañu wëlbati ko yàlla moom mm-hmm. kuy fóon day ah, kuy jëfe woo fóon soo koy nuyu sa loxo war a passé fii ah, waaw fii nii nii ko war a téye mm-hmm. sa war lay fi ci baaraam bi moom kay ku masa lëngu mbaa mu ñëw ko am na ci yow ma <laughs> e, ne li ma gën a doole sant saa ba mu tabaraka taala jàpp ne sama nopp ba taay saa mu di keneen fara wuute day ndeysaan waaw mu ñaay bag seddaay ba ndeysaan muuru rek julli de digaloon na ma julli waaw ñëw naa bul ko def yoonu tool nag bu ko def yoonu tool de bu dëkk di tooñ nag te woo tooñee dem julli de waxuma loolu de waaw julli gi samedi ci ngoon la muy guddi dimanche juróom benn rakka rakk bu ne juróom ñaari ginnaaw fàtte juróom ñaari lexlaas juróom ñaari xulwalaaw ñaar rakk yu ne nga sërmal muy ñetti sërmal waaw ne boo amee mbokk mu dee doo ko def ñetti yoon ñetti yoon mukk te feeñuwu la war nga xam fu mu ne waaw ñu naa boo julee ci kooku la nit la woon koo xam ne képp koo xam ne yàlla mas naa ñemale loo seeni kippaar nga déglu ko. dañ ko daa daw de. ah ko daa daw de. la ko. bu ko wax dikkëri buñ ne ma nga fee dañuy teg kenn du fa jige ndax boo yëgsee boo ko laajee mu wax la li ci boo ko laaj mu wax la ko. waaye nag bu la ko waxee dina la wax li ngay def yàlla jéggal la ko. waaw def nga nangam de boo miimee mu jox lay fur de boo nangoo mooy demal def nangam ak nangam yàlla baal la ko. Ah. mom kay li nga def da cey jaar mom ah. ak lu lu mu ñang njàng da cey jaar waaw waaw nee na waaye dama def nangam waaw dama def nangam yàlla baal bu fekkee ne gaañu baax ñi ñëpp dañ ko nekkon ba jóge fi te defaluñu leen li nu leen defal ni nu leen fonk fonk fonkawuñu ko taxawuñu ci matal seen ak seen barke ci ñom dong lay yam waye du agsi ci ñun ñom ñoo jëfe woon lii حكم اي واخنا اعمل لدنيا كانك لا تموت ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا ندخ لي جيفون بو فكونت نه دا فا يمون سي نيوم كاب با لغي دون تاخو ديكو واختانه ديكو سولي ندير نيت ني دي خام لا ني جيفون دي يون وني تالال و خامل نيت ني دنجي ورا جار ندير تخي الك كون بو فكين نه سيت نو نه ñooñu dañu no liggéey liggéey bu rëy nu baña seet kenn fu fees lu dul ñëpp bokk bëggandoo ñëpp bokk wormaal ñëpp bokk sàmm ñëpp nu bokk ndey bokk baay yëpp li nga xam ne moom la nu alxuraan wax ak li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ñi gëm ñëpp seen deret benn la ki gën a ci way gëm ñi bu fasanteeg nit wëllëre wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit ñëpp benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga ci kaw kenn ci ñoom lu seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sulli seen i jaloore seen masuliya di lu mag ndax dañu ne ida la al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu koo xam ne benn njuum te boo def mbooloo mu jeex